salaam good morning sama gaay good morning ci barke fajar gi good ci barke fajar gi yàlla yàlla nangu suñu ñaan liñ ci ñaan ñaan yàlla Sénégal yàlla nekk ci dëkk yi gën a développé ci li des ci àdduna yàlla yàlla def Sonko commencé développement boobu cinquième président président du Sénégal yàlla ko yàlla def Sonko tamit waaw ndax moo ñu doy man de moo ma doy man waaw fu mu nii ñii ma fi gis nii ñii ma fi gis nii moo ma doy de waaw amul kenn ku ma doy ko dut moom moo tax may ñaan yàlla ba dernière minute yàlla ngay raxas rek ni ko doon raxasee ba sénégalais yi xam ñan ñooy ennemi Sénégal ñu tegee leen nale xale yi bari nañu ñoo leen ëpp fuuf xale yi bari nañ te nangu na ñoo liggéey alxuraan karim laa lay géñal ni la sang sénégalais yi nangu nañoo liggéey ku la wax sénégalais yi ay tappalekat lañu dëgg la dëkk boo dem am na ay tappalekat fii américains yi boo mën naa la filmeel fii chaque jour ba la neexee ma wala ay nit yoo xam ni seen kër yaay yi la ñu nekk wala yooyu liggéeyuñu ay ponk lu magum jëm man maa la ko mën a wax te am nañu opportunité yëpp pour liggéey te bu yëre bu baax bu ne dañ koy sol le téléphone iPhone dañ koy yor waay nañu alxuraanu karim laa lay géñal ni la li des ci àdduna liggéeykat yi mooy nit ñu ñuul ñi ñoom ñoo fi des tubaab yi sax duñ liggéey tubaab bu ñu xëyee ñu ngi solo ba jekko toog ci bureau yi dégg nga na dix heures ñu génn dem am quinze minutes dem ndékki dël ko sax vingt minutes onze heures ñu dem añi euh, midi une ñu dem añi bala trois heures quatre heures ñu commencé wax waxi wàcc duñ ko sax yëg dem si seen kër lu ñu soxla am ko lu ñu bëgg tamit am ko nañu waxante dëgg réew mi faw ñu organiser ko caaxaan bi dafa bëri ak fomm yi dëgg la nit bu bëggee dana am jamono boo xam ne dana dem bëggal boppam am mbégte te nit ñi fa ñuy demee di bëggali seen bopp bu boobaa am na ñu fa nekk di liggéey moo xam restaurant yi la moo xam comme club yi la wala yeneen ak yeneen dégg nga réew mi faw mu organiser wu tegu ci raay boo xam ne raay bu jub la na rang yi jub man nag moom maa ngi ñaan yàlla. yàlla na la yàlla def président Ousmane Sonko nekk cinquième président di Sénégal waaw parce que bëgguñu ku baax ngóor si fa mu newoon rek la ne coalition mënul woon ñàkk def na ko waaye bu ngeen xoolee coow li mooy ni ma leen ko waxee bu ngeen xoolee coow li xam ni moom ba léegi mësul changé taxawaay bi nga xamante ne war na leen ko yéen sénégalais yi ba léegi delluwul ginnaaw amul benn tarafatul ay ni ñii naan dana waxtaan ak du waxtaan waa ji bu woolee wootee dialogue balaa muy ñëw mu leen kii caaxaankat la première dialogue bi loolu loolu la woon lan moo fi sukkandiku après bi ñu fa jógee sàcc suñu xaalis Covid bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi xew ci réew bi ah focus sama gars yi nañu focus incha allah waxuma la sax focus 2024 mais dañuy focus ba àddina bi tukkee incha allah parce que ku focusul nga xam ni lépp dëgg la Sonko tey bu focusul woon tey ñu daam ne ko ci viol man maa la ko wax bu bu fokkasul woon lu bëree bëri changé na ci réew mii à cause de Sonko la ndax sa noon bu nit bu la nit defee noon daf lay sóoraale xam nga ni Macky Sall sóoraalewul Idrissa Seck ndax mi ngi ci poosam dégg nga sóoraalewul Khalifa Sall ndax mi ngi noonu Khalifa Sall mooy li ñëpp a yaakaar rek dafa yaakaar ni maanaam dafa doon infiltrer yeewi askan wi ñëw teg over ni ko américain bi di waxee teg over mooy ñëw jël affaire yi war Sonko dégg nga gàcce bu ci am bu ci amul moom naa dem rek dégg nga te loolu noonu fekk na même Macky sàll même li ngeen bëgg mën na leen ko defal Khalifa Sall te terewul dégg nga jël na li mu soxla dégg nga ku fi woote Barthélemy Dias mi ngi nii euh, di wax naan ay réew mi dañ ko war a développer mais pas ay reyanteeg yooyu xalifa Sall ba mu woosee gatsa gatsa bu ko ci fe Sénégalais yi fekk si woon PS woote na gatsa gatsa xalifa Sall waaw woote na gatsa gatsa te moom li mu woote woon gatsa gatsa dafa ne du ko leeral dem kaso moo ko ko gënal ba noppi bëgg a woote gatsa gatsa bu ko ci population bi fekk si woon dégg nga kon heure bi kon leneen la ñuy wax mais population bi xam nañu lu ñuy xeex xam nañu tamit lu ñu bëgg lu leen leerul duñ ca dem di ca sóobu di ca rey seen bopp man maa la ko wax mais woote na ko li Barthélémy jaas kon xam ngeen ni bu ngeen waxee nekk di gaare waale Sonko ay fen la moo tax loolu du leen defaral nee naa leen yéen yéen yéen ay derrière doomu système bi yéen yéen ñi ngay doo doomu système bi nga xamante ni danañu tàggalikook ñoom incha allah balaa dèjà def nañ ko sax balaa deux mille vingt quatre kon deux mille vingt quatre dafa nar a neex nee naa leen ba dernière minute yàlla na yàlla wone traiteur yëpp wax naa leen fii ku ma fi mës a toog critiquer ko rek bu ngeen demee ba ci biir xool leen laay Pythagore te pourtant yéen patriotes yi da ànd ak moom dégg nga gaañ sama ànd ak moom dégg nga xool leen ay warkat ngeen mais nag yàlla yàlla benn nit boobu noonu muy Ousmane Sonko moo tax ñu koy jàppale de man su ma jàppalee Sonko waxuma su ma ñëwee wax fii ci Sonko di ko jàppale waxuma pour lu neex patriote bi ba mu kontaan ci man waaw ndax toxoo leen ma jóg. dinaa ko ñaanal ci nu ma ko mën a ñaanalee fajar bii ci barke fajar gii yàlla na ko yàlla def président mu nekk ko 2024 euh, waaw waaw li li ñu seq man ak yéen patriotes yi gis nañ ko xam ngeen ko xam nañ ko am na foo xam ni jubawuñ fa waaye am na foo xam ni jukko ju ma juma naqadi la parce que diggante ñun ak ñun bu ñu xeexee génn leen ci ak bàyyi leen di ñu jaxase tamit ba noppi bu ñu xuloowee ngeen génn ci waaw waaye de dala koy wan carrément ne la waaw kii laa àndal yow danga lii yow danga laa bi ma leen ñuy wax ci laay Pythagore àndu ànduleen woon ak moom waaw wala déet àndu leen woon ak moom rek néew ma leen leen kii ci waañu laay wàdd ba la nekkoon doon séddale affaire yeeg borom sàngara yeeg yooyu moo ko fa doon joxe mu gis Pastef taxaw mu dem wut livre bi mais comprendreul parce que nit bu fekkee ne sa set bii. ay caaxaan daf cee nekk doo ko mën a comprendre doo ko mën a comprendre parce que nit bu fekkee ne bokk nga ci benn mbir ba gëm ko gëm idée yi nga dem ba génn ci loolu noonu ca la nga bokkoon yow laay Pythagore kon gëmoo woon idée yi neewoon naa la ci waañu ab Ablaye Wade ba nga bëggoon ci waañu sonk ba nga bëggoon dem ma ne la laay Pythagore waañu Sonko bii kenn du fa seddale sàngara patriote yi dem ànd ak moom fu ngeen mujjee tey du yéen a ngi ak moom waaw wala de mujjewu leen foofu ngeen yaakaar ni kon moom maanaam gëmoon na projet bii moom mës na koo gëm mësu koo gëm projet bii ci xool lay nekk parce que day fekk nga gëm ko dèjà balaa Ousmane sonk di ñëw boo xamul li Ousmane Sonko di xeex dégg nga kon doo ñëw rek dugg ci parce que ñu bëri loole lañ ci dugala ah. dégg nga dem beeg jege beeg bokk beeg lépp nañu jiite ëllëg réew mi pour taxaw man nag duma bokk fa ñuy jiitee waaye kenn duma ëpp fulla réew mii moom kenn doo kenn du ko caxat caxatee sama kanam may dund waaw nee naa leen ba cent ans fii laay toog di ko xeex tànk mi ngi nekk injustice ñu ngi teg sénégalais injustice beneen bi mooy complexe amul doomi xaraam bu ñëw fii dégg nga nga xamante ni sa baay amul njëgu dépasse suba nga ñëw naan danga may saaga ma fayu loolu moom amul sénégalais yi moom loolu dama bëgg mu leer te bëgguñu ko sax yàlla bu yàlla nañ ci yàlla musal ñu toog fii di saagante parce que dund nañu ba am trente langam at bala ñuy dugg ci xeex bi suñu moroom sax duñu taxaw ak moom di kafante ak moom saaga kon xam nañ li ñuy xeex dégg nga nañu xam bu baax li ñuy xeex réew mi li fi nekk xam ngeen ko te dafa war a changer li fi nekk yéen ñëpp yéen a ko xam te dafa war a changer réew mi saa yi xoola xoola journaliste yi xoola journaliste yi jël waa di ko intro di ko di ko defal di ko jox micro ndekete xaj bu xaj bu mu doon yar ca këram rey xar ba ak li fi nekk ci ay nit ñu rey leen ay tappale ñoom ñu ngi jël xam nga loolu ñaawal réew mi la dégg li lii la lii journalisme la lii de moo am ci réew mi mi ngi mel na biisu ngoone histoire biisu ngoone ñoruñu ma sax man li ma ñor ëpp na loolu waaye dem dañ koo teg ci sama kanam histoire euh, histoire biisu ngoone ak Abdou ci boloo ngeen yaakaar ne lu mu doon lu mu doon xeebeel la bu ngeen ko xoolee danañu feeñal seen bopp mais xeebal la dafa xeeb waa ji Sénégal a ngi noonu buñ la xeebee bu ñu jàppee nu yoruñu dara dërëm bu ñu jàppee nu yoroo dërëm dañ lay bëgg a dëggate te am na ñoo xam ne li nga ñuy jàngal xale yi quoi lay bëgg moo tax ma ciy wax xale yi li la seetaan li ñu gis bu biisu ngóone abdu ci bëloo dégg nga maanaam dafa nekk loo xam ni sama dama doon dégluwaat fin bi li nga xamante ni moom laa ci mujjee dégg dégg nga beneen bi mooy euh, nee nañu nit ki buñ la ragalee yow nit ki buñ la ragalee gars yi buñ la ragalee dañuy dem team up team up team up euh, moom la américain bi wax mu ni yow bu fekkee ne ay nit maanaam nit bu la ragalee day dem team up maanaam nit bu la ragalee pour attaquer la day dem wuti yeneen nit dégg nga pour ànd ñoom doo pour song la loolu maanaam maanaam siiñu yow paawo paawo bi nga xamante ni moo am ci yow bi nga àndal moo waral ndaw nit ki dem wuti groupe comme ni ko nit ñi di defee rek wuti gurup pour gañ si yu maanaam pour da pour maanaam euh, euh, euh, booloo pour dal ci sa kaw wala lu mu mën a doon fekk na yow doole paaw bi nga am moo waral loolu dégg nga ngeen di dem di dem di dem ba Abdou ci ba Abdou Thioubalo ci biir wax jooju mu ni xawma ma Pape Diouf mayoon na leen deux cent mille rek nga ne ko man de sama wàll dama ko maye réew maa ngi noonu nag ñoom ñëpp noonu lañuy demee salaire yi ñuy jox alxuraani karim laa lay géñal ni la yemuñu ci waaw yamuñu ci dégg nga nii ñuy demee nii ci seen biir réew mi dañuy fonto réew mi amagul journalisme amagul président lépp matière boo gis amagu fi te réew mi dañoo bëgg mu tegu ci ay rythme yoo xam ni dégg nga mi ngi noonu keneen ku ci pare bu liggéey moom bu jotee nañu liggéey waaw ndax nit ki boo ko jëlee bàyyi ko noonu rek nit ki faw nga jàngal ko ni que da ngaa war a fay taxe obligatoirement la bu année bi jeexee li nga am da nga ko war a wane nga dem fay taxe impôt danga ko war a fay amul liggéeyuma ci gouvernement bi amul liggéeyuma feneen réew noonu lay doxee réew mi doo fi ñëw dégg nga xanaa nga nëbb ko waaye euh, te euh, buñ la buñ ko mënee prouver mën ngaa am problème dégg nga bu ñu tegul agence boo xam ne pour taxe ñii di fay taxe bu dëgër boo xam ne doonuñu ay politiciens boo xam ni sénégalais yi ñooy doomu sénégalais yi ñoo ciy liggéey di ci wàcc ñu teg ci ay institutions yu dëgër lii buñ ko deful am agence su immigration dégg nga xam nga yooyu yëpp yuy génn koom-koom la kon réew mi du développé jëlee la naa nga am suuf ak géej mais tappale rek politiciens yi sax dañuy dem di jëli yeneen xeet di indi di jox suñu nationalité. réew mu tappale xam nga man du dugg ci débat ay diggante euh, xeet bi ak xeet be ndax ñun ñëpp benn lañu même beneen xeet bu duggee ci réew mi jaar ci ay frontière dugg ci réew mi ba am fi teraanga am fi lépp euh, dégg nga ñu jox ko nationalité sénégalais la man loolu laa gëm mu ngi des ci règlement réew mi senegalu ëllëg ban lañuy ñuy taxawu nekk fii di tappale ah, di toroxal yàlla dafa bëgg ku toroxal doomu jàmbur doomu aadama bala ngay gën a kontaan journaliste yi attaqué benn nit indi ci télé bi toroxal ngeen naan jubluwu leen ci toroxal toroxal euh, bu doon école école mii nga xam ne waaw bu doon école la nga dalal ko nii nga doon waxee Abdou Thioubalo ci ay question doo ko ko def da ngeen ko xeeb loolu la man faruma ak Abdou Thioubalo xaw ma ko sax waaw mais dama gis ci tiktok bi ngay ñi dem ak di ñëw après manam sama xel sama xel dem ci manam léegi doole bi ngay wuti comme yow dawuma la gis ci yenen plateau yi ngay dem di indiwaat évoqué waat euh, histoire boobu histoire u Abdou ci Bolo maa ngi delu ci wat ci politique ñi sax ñoruñu mais injustice dama bëggul ay nit di tek ay nit ay doomu aadama parce que ñep ñun ñep ay être humain lañu ay doomu aadama lañu nañ ko tek ci yoon rek bayyi doomu aadama yi ñi toroxal réew maa ngi noonu nag boo yorulee ñu dem ñu nappaaje la benn ngay mën a def téye sa bopp ñoom ñu tam la dëmm ñoom ñu yor tam la dëmm nga muñ ko boo ko mënul muñ da ngay dee sénégalais bi li mu lay teg boo ko mënul muñ da ngay dee te moo tax loolu noonu waroo koo def lu mu la mën a teg muñ ko euh, muñ ko bu ko mettitlu man maa la ko wax ndax bu ñu puusee mut kii rek dañuy gën a puus du ñu mës a dellu ginnaaw waaw lu leer laa lay wax du ñu dellu ginnaaw suba du ñu dellu ginnaaw ginnaaw suba dégg nga ñoom ñii moo tax réew mi tardé façon nit ñu ku jóg ni journaliste la sénégalais yi jël kenn ku nekk rek jël am nga ay fans ñu commencé def fans club dugg na fi gën na fii daanaka xel yooyu noonu nga jël leen buub leen yóbbu leen yow ci li la ñor dong ci la ñuy nekk ci li la ñor dong ci la ñuy nekk boo ngeen amul fulla comme Ousmane sonk nag réew mi ñëpp koy fàtte tey tey imaginel tey bu yàlla tegul woon ku mel ne Ousmane sonk ci kanamu réew mii depuis mu yàlla commencé ko jëppal ba léegi gars yi lu nekk jéem nañ ko pour suul ko mais mënul nekk mënul nekk ay pilifor res ak lépp a ci yem même bi muy am pilifor res bu ñu teewoon élection yu jaar yoon mu am am na lu ëpp loolu boobu même bi balaa sénégalais yi di ko xam rek ñi jot a pare ci ñi yàgg pare ci politique système mu système mu 60 ans bi ñi ci yàgg pare dafa yàgg silencement dégg nga lu leer laa ñoo man élection yi toog naa ci bureau ay élection bureau ya ma toogoon Sonko moo fa jëloon bañ naan pilifor res bureau ya ma toogoon fii bureau ba ma toogoon sonk moo fa ëppale woon te ala El boobu sax am na fa dara maître El Hadj Diouf mii bu dul sonk di maître El Hadj Diouf di lu tuuti piir boobu te pire ndekete boobu Macky Sall lay liggéeyal yàgg naa liggéeyal Macky Sall moo tax waa ji na leen jox leen ngay dem ànd ak Macky Sall benn yoon dem seeyali boppam mooy waa jiñ ko ji waa jiñ ko dénkoon dégg nga 2019 moom mujjee naa dem seeyal boppam ndax loolu la mës a nekk ci loolu la mës a nekk anyway nañu continuer la combat continuer incha allah Sénégal yàlla dinañu suturaal bu soobee yàlla man moom gëm naa loolu man xaw ma ku gëmul loolu mais gëm naa ko man. lii ñuy jooy boobu ba léegi suñuy ay maam doon ko jooy ba jóge fi te sottiwul suñuy suñuy waaw tey suñu bàyyi di ko jooy nekk feek ñun ñenn ñi suñu bàyyi wan dëdduñu ginnaaw wan ñu ginnaaw dégg nga nga xamante ni ñun bu ñu ko jugul xeex tey noonu lay continuer te ñun yaakaar naa ni war nañoo am yërmande suñu doom yi ak suñu sët ëllëg dégg loolu kese la moo tax Sonko sacrifié lépp avec liñ ko teg lépp li gars yi doon wax dëgg la yiñ ko fi doon teg gars yi ñëwuñu ñu naan ana yeewi askan ana gars yi kenn ku ci nekk jaar ne dégg nga mi ngi nii dafa leer naññ tey moo tax ñun dañuy ñaan yàlla rek yàlla na yàlla leeral yoon wi rek. waaw ñi gëm projet bi mosuñoo xàddi même buñ leen dugalee kaso mosuñoo xàddi kon am na ñu baax am na ñu baax de. imaginel tey am na ci ñoo xam ni projet bi rey nañ leen ci xanaa xamoo leen loolu sénégalais yi ay mag ay François Mancabou mais bu ñu bëggoon li Macky Sall euh, bëggoon ñu def ko euh, lañ ko bëggoon defloo bu ko nangoon kenn du damm loos bi ba ko du ñu damm loos moo tax général Moussa Fall mi def sale boulot yooyu nee nañu après sénégalais yi danañu fàtte xaaral ma xaw a teg glace kenn déggatu ko kenn déggatu ko barricade yi teggi na ko xam nañu nekkuñu ci yoon te général Moussa Fall Macky Sall nee na ko du ma présenté waaw bu ngeen dee am bandi ba nga xamante ni chef de bande bi dem na ba ni léegi man damay retraité ci bandi te yow mënatoo am benn bandi bu lay wax naan la demal rey yow rey rek yow rek lañ la lañ la sant buñ la santee reyal nga dem rey waa kooku ne la man dootuma fi nekk di la sant di rey doo seddal parce que moom mën na bu paree mën na am privilège yoo xam ne day génn réew ma parce que euh, am nañu preuve yoo xam ni leeral na ko dëkk tubaab yi am na fa ay kër même ci dëkku naar yi préparé na boppam bu ko defee bu dul Sénégal muy jaabante ci dëkk yooyu di fa dajate dajanteeg traitaram yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci réew meeg yooyu xam naa loolu lay ñaan yàlla de pour def ko ëllëg man loolu laa yaakaar loolu lañ looy ñaan yàlla pour def ko ëllëg léegi euh, teg glace rek après maanaam bu ko defee le combat réew mi moom la la li gars yi moso la ñu nekkoon ba léegi di changé wuñ ko lu nekk def nga ko fi rey fi ay nit mais yow yaay dem di teg ay stratégie di dem ak di yëkkati bu la neexee rey bu la neexee def loolu yow la mais ñii lañu nekkoon mooy gëm réew mi teg élection yu jaar yoon ku war a bokk-bokk ñoom mësuñu cay génn ci la ñu nekk troisième mandat mës doo ko def loolu fulla la loolu dafa jar ay nit génn di la ci gërëm dañu waxante dëgg dégg nga ànd ak ay nit ñu war la ngeen waa ji dafa cuune loolu kenn du ci sàkkee nit cuune man maa la ko wax te jàngat naa ko ci mbiru Sonko kenn du jàngat nit da ngaa mën a contrôler doomu aadama mais doomu adama bi li nekk ci moom bu ab caay-caay mais nit da ko mën a dindi ci moom ah nit mënu koo dindi ci moom du cuune ànd ci yeewi askan bi doon nga xalaat naan ah sa waay daal day def ay yëfi cuune mais du cuune nit ki na mu meloon ñoom nañu meloon ba dugg ci loolu la benn la benn la Barthélemy boo gisee sénégalais yi amoon benn euh, continué woon doon ànd ak yow problème biñ la joxoon maanaam nga rey ci xale boobu noonu même patriote bu la mere sax dégg nga du la indi du indi du dellu siwaat ci histoire boobu xam nga lu tax du ca dellu siwaat parce que ñun ñëpp a gisal suñu bopp li xewoon dégg nga mais kay imaginel bërki démb booy yi nga booy yi passif yi nga jàppoon ñu des ci sa loxo nga rey leen te kenn gisul ni jóg nañu attaqué la lu dul sa koñ la ñu dëkk te lépp ay manipulation la di nga xam ni tey boo reyoon foofu kenn du bokk ak bu njago du juuf bi loolu moom dana leer parce que du ñu ay nervi kon yéen bu ngeen bëggee rey sénégalais yi da ngeen leen di sosal quoi sàcce yi parce que man nee naa leen man tëj naa sama place Sénégal di ñibbi boobu dix neuf dix neuf la une heure du matin laa wàcc tëj di ñibbi. marché altine bi am parcelle noonu mos naa ko fay nettali sax marché lëndi boobu daan am di am parcelle ci cinéma bi man daal may ñibbi xam naa nag boobu marché lëndi bi mi ngi doog a commencé di am foofu noonu am ponkal ndekete mooy ci gardien yi quoi waaw ponkal bi sama waay ma nii rek mu mel na ku ma attaqué rek sonk ma te man jegewuma marchandise jegewuma dara xam nga nit moom mën na jekki-jekki xëy na seytaane moo koy dugg mu ma sàccee te xamul ni sama koñ la nekk <laughs> xamul ni sama koñ la nekk quoi ne ma wuuf gaa yi xam ma gaa yi ma xam rek ñëw jàpp jàpp ko ñu jàpp ko wulli ko ba mu noy nepp te ponkal la nag ñu wulli ko ba mu noy nepp man gaa yi bàyyi leen ko dana ko saa yow xanaa da nga dof yow fii nii ñu nekk nii fii suñu koñ la di nga fi yooxul sàcc yow foo jóge dégg nga tey noonu ngay ñu def Sénégal mën nañu jël seen endemi def ko lu mel noonu nit ñi rey ko moo tax kenn du fajal sa bopp amul benn réew boo xam ne nit da ngaa war a fajal sa bopp bëri na ci suñu génération yi ay erreur yu ñu def noonu la demee nit ki amaana sax ci kër jàmbur lañ ko fekk kii mën na ko fekk ci doomam wala ci jabaram mais ba tey yoon nañu bàyyi yoon def liggéey rek nga yuuxu ko sàcc noonu lañ lay def dañ lay tayle dégg nga ay warkat lañu noonu la bëggoon def sonko te population bi nanguwut incha allah te ba dernière minute di ngeen wane seen bopp man maa leen ko wax bu ko defee ëllëgu Sénégal ñu xam kan moo koy liggéey ak ku ko yor waaw incha allahu yàlla mën na ko yàlla yàlla def war gi bëri na war gi bëri na naan sénégalais yi nanguwuñu liggéey nanguwuñu liggéey ñu nekk boo demee ci toolu Espagne yi fekk leen fa am na ci ñoo xam ne ci autoroute bi la ñuy toll di dox scooter bu ñu dawal sax duñ ko yor ci eh, ci autoroute bi la ñuy dox pour dem tool pour liggéey ñooñu sawaay ku leen jëloon teg leen ci ay conditions yu baax di leen fay bañ leen utiliser nag jël nit ki boo yoree tool di ca génn nga bañ a fay nga bañ a utiliser kenn waaw la ngay am mu ciy am tamit waaye jël ay tool di fay nit ñi ay journée mille francs wa ki ah mille cinq cent wa ki kenn xamul dégg nga sa waay dañu waxante dëgg rek te xam nga tool am na ci sax surtout jamono bii saa yooyu coono yooyu mën na la cee bañ a fekk parce que mën nga bañ a soxla emploi lu ci bëri machines yi mën na koo machines yi mën na koo def ak courant ci bëree bëri da ngay installer affaire yi rek kon daanaka xoolal mi ngi noonu réew mi nañ leen teg ci ay conditions sécurité dégg nga président bañ fee nekkati di gérer xaalisu réew mi ba ay géwalam di ca cëbb ak yeneen ak yeneen loolu buñ ko defoon réew mi léegi mu avancé ku ñëw sa yoon du nekk ci ay affaire xaalis ak justice lii tànk dindi wuñ ko ci te Sonko dafa ni te Sonko moom daf leen ni leen moom loolu la bëgg réew moo xam ne justice bi day indépendant xaalisu réew mi tamit day indépendant waaye président jël ko bu ma neexee dénk ko sama rakk bu ma neexee dénk ko ne jël xaalisu réew mi nu leen neex ngeen pasar pasaree ko kenn du laaj kenn du laaj réew mi li fi nekk dafa doy ko quoi li ñu seetaan moo bëri te ñun du ñu fi nekk di seetaan ñoo nekk ci génération boo xam ne nee naa leen kenn du leen dajale di leen nax ak di leen bëgg a jooyloo daa di nekk di nekk ci réew mi loolu moo fi nekk quoi ana yii ma fi gis nii. ah amul benn télé booy toog ñoom daal bala ñuy dee rek une du trois ñu ñëw bëtt sama yaay sama yaay bëtt seen jooy seen kanam jooy sama yaay sama yaay bëtt seen kanam jooy sama yaay loolu réew day doxee noonu tele yi loolu la ñuy wan émotionnel émotionnel ba ñu am ay politiciens yoo xam ni sax yooyu la ñuy bëgg dajale maire yi di leen jooyloo ah loolu kay moom laay expliquer laa leen loolu da kay dafa mën a doxal réew man gisuma ko ci réew yi di dama mës a gis ku ñu ku jóg rek ñëw toog ci télé yi naan sama yaay di jooy. indil turangal loolu loolu ngeen teg suñu kanam sama yaay jooy sama yaay jooy ah? jooy gu metti gi ba kañ réew dañ ko war a mën a yor ci ay jooy ah loolu dañ cee mën a jële yor ay réew réew mi faw ñu teg ko ci yoon laa leen wax loolu mooy dëgg buñ ko tegul ci yoon yaa ngi gis nit koo xam ni mi ngi ci mbedd mi soxla soxla sénégalais yi muy taxawaalu foofu yow mi àndul ci ñi teg ko ci yoon yowa ca nga bokk dégg ak yeneen ak yeneen agresseurs yi agresseurs yi am ci réew mi du jeex dégg nga kenn du génn nee naa leen policiers yi même sax dañoo dañ leen bàyyeeg seen sago ba nga xamante ni dañ ñu bëri dañ naan ay agresseurs lañu mais ay hommes de tenue la ñuy doon ñooy nekk ci mbedd mi lu leer laa lañu expliqué te bu bu ñu yoon waxal dëgg tey ñu ni réew mi changé na wax leen dëgg li ngeen fi doon def te ñu nangoo wax dëgg dinañ leen wax problème yi loolu moo fi am réew mi faw kenn ku ci nekk fa nga war a yem nga yem fa dégg nga bu ko mënul population bi régleel ke seen bopp loolu kese la lu réew lu ñu ñi fi nekk bu ñu mënul régler population bi régleel leen seen bopp man loolu laa gëm dégg nga téye nit ñi di toroxal doomu senegal yàlla lu ma bind doomu aadama laa ci ba léegi mun leen comprendre loolu téye doomu aadama yi di toroxal dégg nga defuñu la dara yow ñi ngi toroxal ñeneen yow amoo poroblème tout est bien lépp baax na dégg yow daal lépp baax na dafa yomb dafa yomb quoi dañu bàyyi doomu aadama yi ñuy toroxal réew mi yàlla xam na ni li fi nekk li fi nekk yow li li nga am li nga am am ay liggéeykat tubaab yi réewu tubaab yi amuñu ay liggéeykat seen doom liggéeyuñu seen doom pourcentage bu ndaw moo ciy liggéey te bu ñu liggéey sax ñu ngi préparé dégg nga niñ leen protéger ñu ngi préparé dara xew dal leen wala yooyu ndax benn jour dugg naa ci supermarché bi xawal laal ak waa ji sariyo bi waa ji mi naan ma waaye danga ma waroon laal sario bi sax ndax ma mën a am ñaari semaine yu ma dul liggéey lu leer laa lay wax liggéey nañoo ñoom tubaab yi dañuy liggéey ak ñoom indi trois ñu tappale dem collecté ji bénéfice en benn troit mois quatre mois collecte bénéfice demaat ñëwaat liggéeyaat am na ñoo xam ne ci tappale yooyu la ñu nekk dégg yow nga am ay ndaw yu nangoo liggéey dañu waxante dëgg rek kenn ku ci nekk bëgg teral sa bopp ak say waajur hmm? tey doomu aadama boo ko joxoon opportunité mu liggéey ah mais joxoo ko opportunité lépp nga jël ko jox ko nasaraan yi ba noppi toog di wut ay lay bëgg ñoo yàpp nag bi ñu fontoo bëgg ñoo yàpp ah naan moo ñuy tànnal président réewande daa mën a weesu lool yow Macky Sall da nga réew billaahi Macky Sall ku réew la respecté wul sénégalais yi te loolu loolu réewande la loolu réewande la yow respecté woo sénégalais yi benn yoon mais loolu bu dul réewande lu mu doon dégg nga respecté wuloo sénégalais yi nga jiite loolu mooy dëgg yàgg na leen ko won lépp lu muy wax lu am njariñ mu dem ca bitim réew waxee ji ko fi loolu rek ay geste réewande la dénk la Sénégal réew mi maguloo ci réew mi ëppoo fi xam-xam ñu dénk la réew mi nga nekk fi ne di di kalli kallee sénégalais yi Covid bi ngay xamee ni respecté wul sénégalais ay policiers génn naan yar bi jeeg laa ko yar rawal bii paa laa ko rawal di dóor suñu yaay yi ñii di ko filmer ñu toog ci pale ba di ñu kekkeeki ndekete boobu ñu ngi sàcc suñu alal ay vrai imbécile la ñu laa leen wax nii bu ngeen fi jóge force ngeen fi jóge moomoo leen réew mi da fiy jóge force amul sax neexal ay waaw nañu waxtaan ak moom rek bu ko defee moom mën nañ ko bàyyi mu dem ak njabootam bu ñuy topp ñu topp yenn sàcc yi cottu xoonam ñëpp sàcc yëpp la ñuy topp même avant Macky Sall sàcc yi fi nekkoon yëpp la ñuy topp képp ku mës a sàcc sa xaalisu sénégalais yi euh, euh, euh, dossier dëggantaan yi te dossier boo fi jël nga fa nga nga nga sànk ko trahison la bu yeboo nga xam li ngay def nag naan damay dem damay def nga ay ay ay pexe jël Bassirou Gueye delloo ko yóbbu ko of nag pour mu suul dossier yi mais dossier mënoo koo suul fii dossier bu ngeen fi suul dégg nga Trump a ngi nii benn dossier bu mu jël rek secret dossier bu mu jëlaloon boppam kese ñu ngi naan fu mu toll nii mi ngi wuti mi ngi dollee ay avocat pour pour ëllëg kaso bañ ko cee fekk dañu waxante dëgg dossier bu ngeen fi suul trahison lañ la ñu kii yéen fi nekk de mais dossier bu ngeen fi suul trahison ne dossier depuis Abdou Diouf ba léegi bu yoboo ngeen bàyyi kam leer lañ leen wax parce que xaalis sénégalais yi dafa war a ñëw dégg nga sàcc xaalis sénégalais yi sa doom doon na ko sa doom yi sax dootuñu nekkati sénégalais mais xaalis yooyu dañ leen war a jëli xaalis yooyu dañ leen war a jëli te bu ñu amul président bu ta amee taxawaay bu mel nii du ñu jot ci xaalis boobu waaw xaalis yooyu yëpp lañu ñu war a jëli ay tappale la dem nañu jëli xaalis yéen ni nga ñu defee ay euh, euh, saytu xaalisu réew mi sax defee leen ko def bu jaar yoon mujjee coûté seer sénégalais yi lu lu ëpp li ñu maanaam li ñu fi sàcc sax mënul ñu ko leeral ñu nar a génnite ay milliards yoo xam ne barki démb la ñu yëpp lépp mi mille milliards tey tey waa jooju noonu nu mu tuddati waaye tubaab boobu ngeen doon àtte mu tëdd ci lal bi euh, Bourgi la xaw ma mille nangam milliards yi ngeen li ngeen leb loolu nar ngeen ko ci fay lu ëpp deux cent nangam milliards. kon léegi ana xaalis boobu tubaab yi dañu leen lebal xaalis rek ni am na tubaab yu am kii non réew mi daal moo neex quoi réew moo neex naafeq dong moo lay gërëm mais yàlla yàlla wane naafeq yi ba ñu xam ni ñii naafeq lañu waajur bi toog doom ji xam ni papam mii naafeq la Macky Sall mii dana leeral lépp incha allahu. lépp dina ko leeral lu waaye mën a neex kilifa gu mën a nangoo jéngu rek ànd ak Macky lu la neex defal lu leen neex def leen waaw yéen daal yéen a ay lu leen neex def leen waaw même bu dul ci jamono yàlla danañu àtte yàlla ma xiyaam incha allah waaw Assane Omar Dia euh, Seck ziar naa la borodo yàlla danañu àtte bu soobee yàlla. wala ñaata de tàppale rek téye population bi naxee mbay téye leen mel na ku yor seen i bébé quoi loolu laa ko doon waxee démb de ah. mel na ku yor seen bébé quoi téye leen naan sama yaay coon ñang sa suñu ñeenti fan lañ daan toog di ñu lekk te bu leen neexee ngeen ni Sénégal teraanga kër goo dugg lekk naan réew mi problème amu fi kër goo dugg lekk waaye bu leen neexee ngeen dajale maire yi di jooy ah? ñi ngeen fa dajale genn wàll gi yëpp ay màggatu xeesalkat lañu xaalis boobu ñu doon xeesal buñ ko doon def ci njaboot gi dégg nga kon duñu xiif nañuy waxante dëgg am na coono yoo xam ni Sénégal yeggagu fa dëgg la mais nit ki moo koy teg boppam duñu xiif dañu waxante dëgg bàyyi seen jooy yi genn wàll maire yooyu nga dajale ñuy jooy ñëpp dégg nga lu ñu am akaña la jar akaña ak top si zel la xaw ma buñ kenn rey génération bi nan la ñuy def ëllëg ba nga xamante ni danañu am teraanga pour jàppale seen bopp ak seen waajur solution yooyu la ñu soxla mooy comme lu wàll ci cadre mbay mi ngay def man ci foofu laay waxee ak yow waaw nga Akon Akon mu ne nigérians yi ñoo ñoo gën a muus ci monde bi xam nga complexe quoi parce que euh, Sénégal wal nga dañoo complexe comme sénégalais yi dañoo complexe xam nga foofu moom wal nga ko ba mu nooy ñu ngi ci sa ginnaaw léegi da ngay dem jëliwaat beneen population pour mën a lépp ci ay affaire selfishness la selfishness maanaam ci seen bopp quoi mais na nan nga mën a prouver noo mën a prouver ni nigériens yi ñoo gën a muus ci monde bi dëgg la population bu rëy la mais noo ko mën a prouver loko meuna prouver yow sa bop sa rek rek exemple nga sa bàyyi fi mu jaar ba duggal la yobul la ci système bo xamni de nga tekki nga fa lolou sa bàyyi do exemple waxante deug mel mais rew mu mokal nga ko motax len lu way neex defal li Séné li Sénégal di di daj te do ci tok yéy ci yàbbi mukk dégg nga doo ci masa yeey yàbbi seeni discours daal mooy mooy loolu quoi xaw ma li ngeen bëgg gars yi dégg ko la am déet multinationales yi dégg li xew ci seen réew ekon ak li la yàlla jox ci teraanga ma la nga jël ko di ko maye de mais xoolal li xew sa réew xoolal suñu yaay booy yi seen tànk yi di nëpp te yàlla jox na leen teraanga yoo xam ne ay sénégalais ngeen mën ngeen ko faj te du ngeen ko yëg xam nga bëri na ci ñun ñun takkalekat yi mënuñoo dem di dimbali keneen parce que yor nañu ay mbokk yoo xam ne sax dimbaliwuñ leen mais maanaam imagineel nga yor benn façon teraanga bi nii yore ko comme nii ngeen ko yoree nii ah mën nañu nekk di wax leneen nan ay nigériens yi ñoo gën a muus ci monde bi bu ko defee nigériens yi gën la indi am nga am falo falo ñu ñëw gën a ñëw ban njëriñ la la amal ci seen bopp dong ngeen nekk bëri na ci yéen kenn amulu ci njëriñ ci génération bi nga nekkal. xale yii di dee pour réew mi saa ñoo leen ëpp njariñ ci réew mi waaw man dëgg rek laa àndal ànduma ci ay complexe képp kuy toog naan mën a mën a yorul dara mooy complexe bi ngeen complexe encore ci Mor Géej Mor Géej mii ki mu ki nga xamante ni protection wala ci wàllu maanaam maanaam nit ci wàllu doole wala féete la ca pour mën a taxawaay mooy benn nit bi nga gën a respecté sama booy la Mor Gueye sama booy la loolu laa bëgg nga xam bu baax a baax waaw toog naan ay milliardaire keroog gisoo kap euh, kap bi mu sol jub xocc sax defu ko nga toog naan ay milliards la su ma danaa la jox milliards yor cigare yor cigaram dinaa la jox ay milliards nga dem benn sax yoroo ko ci laa la benn man maa la ko wax dégg nga xam nga yomb ne man su ma neexee léegi ma jël ma luyee man ak samay doom jet privé wala hélicoptère hélicoptère léegi ma luyee ko pour jàll pour jéggi ndox mi nii rek dugg ci nii nekk ci kaw léegi léegi wala jet privé dem Miami lagi suma ma def ko lolou dafa tax mu nek xaalis bu bari lañu waxante deug rek yoy ñi jaay eh, sénégalais yi pour complexer ak yooyu non man nak jek xam nga mosoo li tax duma wax ci yow lu bari parce que comme ni la koy néna la ki nga xamanteni mom mom nga gëna fi ci réew mi sama boy la té mom ngay andal lolou la bëgg nga def ko ci sa bopp bobu non encore une fois deug nuñ sénégalais yi nga xamanteni motax boy yi deug Euh, soo ko soo ko no no intéresse no no stress amoon na façon nu mu doon taggee réew ma mu nekkoon ba jamono yu am na ay jamono xale yu dul jeex doon nañu dee ci Espagne parce que dañoo yaakaar ni li muy wax dëgg lépp dëgg la te ndekete waa ji benn meeram la yor foofu meer xam nga meer yi dañuy dëkk dañuy liggéey yàgg dajale bu ko defee ñu yor la di la jëndal bu ñu demee ci marché bi gis xam nga dañuy mën a jënd cadeau nag yow guddi gi boo boo leen joxee li ñu bëgg loo xam ne mënuñu koo am xëy na ñu euh, dem jëndal la benn kii jëndal la cadeau tegal la nga ñëw naan di woo sénégalais yi xoola jamono yooyu xale yi liñ doon dee barsa wala barsa dégg nga booy dag la ñuy wax réalité yi ci nekk mortgage phénomène mortgage bi mu génnee sénégalais yi pour ñoom te pourtant am na koo xam ni neenam de moom maanaam daal di di mille dollars yu mu fayee avocat daal bu ko amee ñibbiwaat Sénégal daal moo ko ko gënal pourtant am na sénégalais yoo xam ne jaar nañ ci yoon ba ñëw ba dugg fii parce que problème bi mooy boo jaaree ci yoonu suuf pour kayit nga am ko problème lay doon day doon problème yu garaaw a garaaw a garaaw mais phénomène mor mortgage bi mu ñëwee ngeen commencé gis yoon wii na nii parce que yi muy wax sénégalais yi ne moom la am amu ko dafay fen man maa la ko wax dafay fen alxuraanu karim laa lay giñal moom New York la nekk man New York laa nekk mais alxuraanu kërim laa lay giñal ni dafay fen yoru ko mën na jëw dajale ay woykat benn événement parce que mën nga toog def li lay neex am na ci ñoo xam ni te xam naa ci li ñuy yëngu am na ci xam naa ci lu ñuy yëngu xaalis bi liggéeyuñ ko kës néew loolu ñuy am kës néew amoon na ñu fi nekkoon ñu ngi ci kaso bi te am na ci ñoo xam ne soixante-quinze ans lañ leen tëj ci affaire crédit carte gars yi dañ lay dajale dañ lay xam bàyyi la ci biir bu nga xamante buñ lee la nuuj ñaar ngay mën a am boo yorul këyit da ngay dellu senegal boo yoree këyit da ngay yàgg ci kaso bi am na ñu ko fi def Ibou Laye bi ñuy nekk di ànd ak ak euh, mooy ni ma ko wax nii maanaam kooku ma lay wax ni moom nga àndal ci ci Ibou Laye da daan ànd ak Ibou Laye noonu tey tëjuñu ko ay année yu bëree bëree bëri dañu waxante dëgg. am na ñu fi tëj ay soixante quinze ans ci sàcc ak yeneen ak yeneen imaginez loolu rek wala lu ko ëpp parce que dañ koy dajale léegi dafay euh, délit boo def dafa am numéro xaa pour mu doon kirim tey mille dollars boo ko boo sàccee lu ëpp mille dollars day romb day romb day gën a woyof tey boo sàccoon lu yeggul mille dollars léegi nu muy gën a bëree nag xaalis bi wala noonu nu muy gën a bëree ngay gën a dugg dañuy tëj nit ci sàcc kese mu ëpp lu ñuy tëj nit ci rey nit bu ngeen nekkee ci dëkku mu mun leen nii lay doxee am nga opportunité pour liggéey bul yàkkamti boo toogee mën nga yàlla mën na laa suturaal nga ni déedéet damay ñëw express ko léegi laa ko bëgg am damay ñëw am ko léegi moo la ñuy dugal ñii am idée bu ci nekk te yéen ñi koy def yëpp ay yàq ngeen ñu def da nga ñu yàq rek da nga ñu dugg ci boîte yi dégg nga jëndal ña fa nekk yëpp yooyu rek nit ñi wër la loolu ngeen ko bëggee Kalis bi sax seen waajur yi duñ ko gis en général dañuy am opportunité boba mais seen waajur yi sax duñu gis xaalis bi lu leer la la dañ ko woné ci seen beut ni ñu naan waji ponkal la yow yaangi sol kap bo xamni ni kap da fay jup man man dama lay dama lay xol bu baax a baax walaa lalai nga lu leer la lay expliquer wala kana la dama du ma fi nek di feugante kenn deun parce que man lima gëm man moy yaangi am doole rek deng. nga war nga waro teud ñu lay jox wala ngay kii dangaa war a dem wuti indi waaw tànk yàlla mi ngi lay jox doole man loolu laa gëm moo tax man gëm naa ni du ma ñàkk mukk tànk maa ngi wér man loolu laa gëm quoi waaw ku la neex lu mu neex nga mën nga ko gëm man may man man lii laa gëm man waaw loolu kese la ko bàyyi caaxaan yi mel nañu waxante dëgg man li fi nekk dafa yomb dégg nga bi phénomène moor géej bi ci bañ ci jugee matul at xale yi commencé mosuñoo xam yoonu suufu Amérique bi ñi ciy dee yéenay responsabilité ku ci jàdd jàll dugg jàll so sànku yéenay responsabilité ku ci jàll na xëy na tegu ci siraatal musaxim tamit bu dee am na am nga ci yow yaay responsabilité mais boo bëggee gëmloo sénégalais yi ne man ngeen am façon xaalis phénomène yu ay phénomène yu euh, griffe sugu ay phénomène yu mortgage dégg nga dégg nga mooy loolu quoi. wanewu boobu noonu mooy rey sénégalais yi nag moo la ñuy rey man du ma dugg ci yooyu de man a man a man a man a man a man da ngeen fi yorul yéen a fi mujjee ñëw barki démb ngeen fii ñëw fii nii ah dégg nga nañu waxante dëgg rek di fontoo nit ñi quoi nañu waxante dëgg. réew mi boo toogee liggéey yàlla mën na laa joxal defal sutura boo dee commerce tamit yàlla mën na laa defar sutura sutura bu ne mën nga koo am dégg waaye damay ñëw sàcc ay góor yoo xam ne dañuy dem liggéey yi ngeen sàcc seen crédit carte yi dégg nga dem jënd ci ay oto ay tele ay affaire ay matériel lañ ciy jënd dem jaayiwaat ko lu yomb dem jëndi benn imagine léegi dañu dem jënd benn montre bu 1000 dollars ñëw jaayee ko 300 dollars noonu la ñuy sàccee xaalisu jàmbur yi tubaab yi quatre heures du matin da leen ñuy fekk fii ay paa ñuy ñuy ñuy ñuy gorote ñuy ñuy ñuy liggéey mais ay maire quatre heures du matin ñu nekk ci terrain yi di liggéey yàlla jox leen teraanga parce que nekk nañ ci liggéey bu dëkk bu am opportunité bu ngeen dee sàcc kay ngeen sàcc gouvernement bi sax wala yooyu mais ay ay doomu aadama la ñuy sàcc buñ ko mënul prouver rek dañ naan yow sa xaalis yi yaa ci jënd ba noppi bëgguñoo fontoo fekk na benn wëndëng bu mel na yéen ñii genre yooyu ñoo koy def dañu waxante dëgg ay sàcc crédit carte crédit carte jàmbur ñëw di tiitaru naan yor nga ay milliards ay fen c'est fo dégg c'est faux ngeen fi bëggee toog sénégalais yéen la ñu gën a suivre mais du ngeen dara du ngeen tus man li may jàngal sénégalais yi mooy liggéey man sénégalais li ma leen won ni leen bul xeeb dara commencé ci palaat di jëm di raxasi ndab di jóg di wuti beneen boo ñëwee jàngi métier bu ko jëree nga dem defi ko def naa ko jàngi métier pour mo boo liggéeyee gën a mën a am xaalis parce que réew mi noonu lay demee compétence lay demee waaw nu nu sa nouveau toll rek noonu ngay noonu ngay toll ci teraanga waaw loolu la bëgg nga xam ko nga dem wuti ko jàngi métier dem jàngiwaat dem jàngiwaat gën a mën a am teraanga man ci lii laay woo sénégalais mais woowuma leen naan yor naa ay milliards dama jël jet privé dem lekk ji eh, ndékkee ji Los Angeles da ko fee defaat bi mu ko fi defee benn yoon defaat na ko xaalis bi nga xamante ni liggéey nga ko wala jël nga ko ci ay dil yoo yoo gañe dem wan ko sénégalais ban njëriñ laam dajale fa ay nit ñu coow la jeex na da ko continuer ba nga ko ci defee defati nga ko milliardaire kay foofu lañ koy xamee mais tey nee naa la walaakaana ngeen ay walaakaana waaw walaakaana ci boppam moom ngeen duñ jóge ci boîte yi jaxasoog tappalekat yi kenn ku ci nekk sax lu la neex yaa xam def ko quoi ci wàllu ci wàllu kii mais ngalawaay yii nga ñi wan sénégalais yi ne moo am bitim réew wax leen leen dëgg bi liggéey moo fi am toog ba sa taat yi nooy nepp bu dee na taxi ngay defal bu dee jaay ngay def da ngay taxaw ba naan ci air bi ba nelaw pour am dara parce que dëkk yi yombut dégg wa ilaa ci kër jàmbur yi appartement jàmbur yi ngay dem après mujjee di fa làqatu boo yoree tuuti dem ci hôtel yi ñu naan xool leen waa ji la euh, euh, àdduna vie bi muy dund te tey boo leen fekkee ñu ngi xat-xatloo ci ay photo yi ak yeneen ak yeneen te xamu leen li xew bés un jour viendra di ngeen xam li xew di leen nax loolu ma am bitim réew liggéey comme lii ma la ñu woon nii chaque jour ak xeex pour sa réew mel comme nii lii moo am bitim réew keneen ku la wax am na fa leneen woo Ousmane Tounkara naan ko waaw bu ngeen bëggee man ma jox leen milliard ay mili non <laughs> dégg ay sénégalais nag tamit gëm ko quoi dégg nga ni ko yow rek la ñuy topp boobu laa gis yow rek la ñuy suivre yow rek lay topp yow rek lay topp ma ne la bitim réew am na teraanga mais condition yi ñu teg ba nga mën fee am teraanga buñ ko tégué Sénégal ñu mëna ñibbi ci Sénégal am ko fa man mako wax waaw man mako wax li ngay do dem fenn di régler ay papier ñu lay laaj yenn xaaliss yi amna ay licence yo xamni ni sawaay ay juróom benn junni lañ lay wax mais Sénégal bu doon Sénégal ay 1 million lañ lay laaj ak 300 nangam mille té yoon la yow pour nga jot ci dañu waxante deug li mo am ci réew mi kenen ko la wax lenen ay fenn la ci lii laay jàngal sénégalais yi li ma leen ñu jàngal mooy liggéey man loolu laa leen ñu woon wanu ma leen ni leen man am yor naa ay milliards mën naa jël jet privé dem ci dëkk bi ah ma luyee ay oto yu seer dañ koy luyee parce que oto yooyu noonu su ma neexee nii une semaine ma ñëw génn fii commencé def ay vidéo luyee fi oto bu dul oto jinne ma luyee ko wan ko yi ne leen ah milliardaire la milliardaire la coow li jëpp ñu naan waa ji ndekete da doon dof dof lu de waaye ndekete milliardaire la moom da doon làqatu de ak yére mi bon yenn saa yi sax sol na fi yére boo xam ni kii Amérique la nekk ndax benn jour maa ngi def live sol benn yére boo xam ni poxotaan bi ci suuf dafa xotteeku benn patriote di ma saboté quoi. da fekk ne comprendreul sax xam nga naan kii lu muy dof dof lu nii yëpp ndekete milliardaire la xam nga loolu ku ne mën na ko ban njëriñ la may amal après sama xaalis seey quoi loo xam ne dama ko liggéey sàccu ko. dama ko liggéey mu seey quoi su ma la toppandoowee du ma sanku morgue yow yow da ngay sàcc affaire crédit kart yooyu ci ngay yëngu léegi man su ma la toppandoowee man sénégalais lam daar bii waa léegi kon man du doo kon man man coow li duma ma jib booy yi leen topp laa leen ñu expliqué booy yi 116 yooyu noonu bu leen daanu ci ndëgg sërëxal yooyu te seen eh, eh, escouteur yooyu ngeen dem wutali ka palaat dégg nga jënd escouteur policiers yi ñëw dagg ko nga jën jëndaat loolu loolu muus la nga yaakaar ni kii la xel la scooter bii gisoo sama a ngi nee gisoo bee dafa am palaat moo tax policiers yi sañu ñëw di ko dagg mi ngi nee gis nga ko nee ci wetu oto be ne le palaat laa ci def di di ko fayal assurance cent dollars te mën nga am lu mooy lu mooy loolu nga dem def ci palaat mu liigal dégg nga damay gis du yéen kese lañ koy def de am na ko def vidéo ci TikTok bi naan sénégalais yi la ñuy sonal du sénégalais yi de xeet yëpp yenn saa yi damay damay damay dugg fii ci euh, sept heures huit bu ma jaaree ci euh, service road bi nii autoroute bi dafa ne ci kaw bu ma jaaree ci suuf seen camion yooyu dañ koy taxaw booy bu ñëw defuñu ci palaat te am na ci yoo xam ne sax boo demee di ci def palaat da ngay ñuy xam yi ngay ñuy jënd am na ci yoo xam ne boo demee di ci def palaat duñ ko nangu parce que yu ay sinuwaa la mën na jékki-jékki dof indi ay problème borom assurance yi xam nañ lu ñuy def mais am yo xamni séruñu ngeen dem def ci palaat yaa ngi liggéey kay di am teranga sama way, ah légui sa way 100 dollars yoy mëno ko fay par wèr pour assurance ah mën na ko sax moyen deug nga te bu leen moor yo yóbbu fi liggéey mo fi am comme nonu ngeen ñu lo di jënd seeni escouteur di def ay tiak tiak lu leer la lañu expliquer ay fenkat lañu ay fraude lañu ay fraude mom lañu li leen wan du duñu moom la ca gannaaw loolu loolu lañu lu leer laa leen gis naa fi façon sénégalais bu ci nekk fii ci réew mi bu ci nekk gis naa ko sama génération loolu laa bëgg ngeen xam ko bu leen daanu ci ndëgg sërëxal yooyu dégg nga lu leer laa lañu expliqué yàlla bu la waree jox teraange ala kulli xaal mën a dana la ko jox waaw opportunité yëpp ngi boo bëggee liggéey nga dem liggéey boo bëggee boo amul métier nga dem jàngiwaat métier pour gën a ñoŋal sa bopp gën a protéger sa bopp dégg nga jàngi opportunité yooyu yëpp am na fi dégg nga mais bu leen kenn yóbbu ci ay affaire mën naa jël ay jet privé man milliardaire laa waa politiciens yi neexoon nga ne ko waa pare naa jox ma xaalis bi ah deux millions sax du la ko génneel deux millions man dinaa yor ay milliards ma lay xool ci sa jëmm gars yi mënuñoo xàmmee boo nekkee bitim réew mënuñoo xàmmee ku yor milliard ak ku mal yoru milliard mën nga sax sol na nga sangu ba set rek sol lu simple dégg nga taal caméra bi mu leer nañ nga xool dégg nga taal caméra bi rek mu leer nga xool c'est que action yooyu gars yi duñ ci bàyyi xel moom mooy mooy rey boy de mooy sànq boy mooy ni ma leen ko waxee rek amoon na fii benn jamono soxo soxonoo stress noonu la doon def waaw gaal sénégalais yi dañuy déglu de yéen ñu ci tiktok bi bu yoboo kuy wax na nga wax lu am njariñ xale yi da yéen ñu topp de kuy wax bu yoboo nga wax lu am njariñ moom laa la ko waxee analyse yi gars yi gis nañ ko sax dañ ko ñemewul wax mais gis nañ ko genre imbécile dañoo aloku dañoo aloku quoi mais nañ dem rek alku ngeen def man maa ko wax fen fen dafa baax seeka nag boo waxee li taxoon boobu ba léegi waxuma ci ñoom parce que boo waxee dañ naan dafa soxor dama bëgg ngeen bàyyi dama dama ñu bàyyi ba ngeen gisal seen bopp nee naa leen am na ci ñoo xam ni li ñu bëgg ngeen gis ko rek la ñuy gis te loolu ku ko bëgg tey su ma toogee benn weer liggéey ko liggéey benn weer rek te yàquma ci dara benn weer laa yàquma ci dara su ma neexee mën naa génn fii benn semaine luy ay oto yu rafet wala ma jël ni jël naa hélicoptère nekk ca kaw ñu filmer ma mën ne ca kaw di jàll ñu naan ma kii pourtant borom xaalis la de moo ko luyee de mais xoolal non <laughs> réew yii ñu nekk ni tubaab yi sax ñoom nekkuñu da ngay gis milliardaire tubaab simple day simple ndeysaan simple lay def billaahi nee naa la koo gis muy fëgg dënd naan mën a mën a du moom xoolal la ca gannaaw loolu nga teg ko ko ba keroog ngay am preuve yu leer nañ te et puis sax boo doonee milliardaire et puis lan léegi sénégalais yi dañoo war a nekk benn complexe sa ginnaaw quoi dégg nga exemple bi nga ñu won xale yi ñuy dee ci frontières yi wax leen dëgg gi fi nekk man moom laa la ñuy wax nii damay nekk fii dix heures du temps laay liggéey dégg nga neuf heures du laay liggéey loolu laay wax fi moo fi am de neuf heures du liggéey su ma noppaloo dama dem julli ji wala yooyu neuf heures temps liggéey dangay ngay toog taxi comme ni ko taximan bi di defee senegal neuf heures temps boo toogul ci taxi di liggéey di leneen ak leneen doo am dara loo loo loo ndax réew mi yombut lu leer laa la ñuy expliquer tey bu doon na maanaam dañuy korkoral waaye tamit la ñu waxandi dëgg loolu moo fi am dëgg googu moo fi am réalité bii moo am ci bitim réew. keneen ku la wax leneen ay fen la boo toogul liggéey doo am teraanga dégg nga teraanga yi leen ñu di wan dañ koy sàcc te tubaab yi dofuñu te ku ñu ci ku ñu ne ci nuuc nag tubaab bu ñu nee la nuuc ci sàcc da nga xam ni lépp dëgg la wax naa leen ko fii ngay ñu dof doful am na ay sénégalais ay yoo xam ne ëpp liñ leen tëj ëpp na 30 ans ci ay sàcc dañ leen ñu bàyyi ñuy yàqate rek di sàcc di yàqate rek duñ leen yàkkamti di leen topp di leen topp di leen topp ba benn jour ñu ñu la nuuj bu ñu leen la nuuj nag jant bi moom dañ la koy nëbb dégg nga ana ñooñu sa ñu fi jaaroon jaaru ibulaay yi kenn da leen déggati kenn déggatu leen kenn déggatu leen loolu dafa war a leer encore une fois ñu bàyyi suñu tappale yi ñuy nekkee di def dégg nga bàyyi di jaxasante suñu biir dégg nga ñun dégg nga ku fi nekk dëggaloo sa bopp dem di wootante di jaxase di jaxasante suñu biir di jaxasante kenn ku ci nekk di jaxas sa morom ah, lan moo ko fi jar jaru ko nañu waxante dëgg man ku ma fi war a wax dëgg dinaa la wax dëgg waaw ku ma jàpp ni war naa la wax dëgg rek dinaa la wax dëgg waaw coow li coow li loolu la nañu génn rek bu ñu xeexee ñun suñu biir ñiy xeex pour réew mi nañ ci génn waaw le combat continue nit ki boo ko xamul rek xamoo ko dellu ginnaaw mooy li ma lay wax rek nit ki mënoo leen def ay lobby ba ba ba ñu dellu ginnaaw man man sama bopp sax ba ma dellu ginnaaw ci li ma gëm pour réew mi yow yaay dellu ginnaaw kay waaye man duma mës a dellu ginnaaw waaw lu waay yor ci doole rek wane ko ñi ko fi jote wane ñu wane nañu seen fa ñu féete sénégalais yi man du da ñëw rek di keb-keb yi ci réew mi di wax rek ma ma gëm la cent pour cent de da ngay da ngay ndax bëri na fi ñu fi nekk di wax mais danañu wax lépp ci analise dong lañ ko teg teguñu ko ci ay preuve yu leer naññ man maa ko wax ba keroog li ñuy gis di ci ñun ñëpp di ci d'accord leen la ñaata yoon la fi gars yi waxkat yi génn wax te la ñu wax la ca ak la ca gannaaw dëgg du benn la ñu wax ak la lay dëgg sax bo wuute nañu ñu ngi xeex guerre day saf mondial moo tax ma ànd ak ñoom ah. ba bëri na ci ñoo xam ni dëgg googu nga leen ñuy wax moo leen déranger moo tax ngeen bokk ay mbir ñu rocc la ca dégg moo tax ma ne gars yi nañu génn suñuy xeex rek ndax man su ma meloon comme yeneen gars yi fii laay nekk di ilie ma xeex ak Macky Sall la ma wëlbatiku ci ci kaw ay activiste loolu daf ma ko jaral dara jaralu ma ko parce que bugguma loolu déjà moo am dégg nga bëgguma loolu dèjà mu am mais am na fi ñoo xam ne ay fraude lañu moo tax Sonko ni wóoluwuma benn wóoluwuma activiste yi parce que Sonko xam ne li xew yéen yéen a nekk foofu di dof dof la rek bëri ñu fi nekk di wax naan dañuy jàppale Sonko mais gëmuñu ko sax ba derrière mi ni gëmuñu ko man maa ko wax gëmuñu ko ñu waxante dëgg problème bi lolou la y a pas oh, un messi here sénégalais yi bëgg dégg fenn rek ñu leen koy wax tay mo leen né patriote la di leen fenn suba ngone sax yow dañ lay gëm Sonko xam na li def nak té lolou nga ko défé ni wolo ben activiste non la non la de réew mi kenn du ko caaxaane na activiste bi mi continuer ci xéxam parce que activiste bi dëgg dëgg dëgg du sentu poste ëlëk day continuer ci xéxam bu gisee nit ñi di malaat mu génn wax ko bu gisee nit ñi mu di seen yaram yi di nëb di feebar mu génn wax ko bu gisee ñuy toroxal ay doomu aadama comme diggante biisu ak ak ak ak euh, nu mu tuddati Abdou Ciboloo doo ko sax xeet loolu mooy activisme definition of activism is that taxawu sa bu ñu manqué wee ndox nga génn ko dona dénoncé ko ñun lan lan def leneen lu dul loolu man sama xeex duma ci dugal fen mukk xalaatuma ko pour lan may fen pour nit ñi topp ma lu ma ko def loolu kese la waaye un jour viendra di ngeen gisal seen bopp benn doomu aadama laa dul fen pour nga topp ma duma ci tappale ñëw wax fullaak fayda dem sama yoon bu ma jàppee ne boo jàppee ne fullaak fayda yi may wax ay caaxaan la kooku yawa nañu waxante dëgg rek mais kooku yawa débat bi mënoon na sax romb fii mais seen jukka yee tax ñu leen ñuy wax yenn saa yi sénégalais yi li nga xamante ne mooy dëgg te xam naa du ñàkk noonu yi danañ ci dégg quoi parce que fii noonu du fi taxawaalu mais dinañu jëm ci suuf après déglu ko dañoo mere Macky Sall rek di bàyyi fen fenn di jàll yenn saa loolu kese la dañoo mere Macky Sall rek ak politique bi ak nitam yi ñu àndal mais man kon du ma wëlbatiku man yàlla may na ma yeewute goo xam ni du ma wëlbatiku chaque jour di asarne wu ci kaw ñu waxante dëgg rek le yàlla yàlla musal ci rëmbaaj pexe noon cuuc fi cuuc fee waaw cuuc fii cuuc fee lépp xam nañ ko dañu ay dofa ah. xam nañ lépp waaye taxoo la ñu jóg réew mee ñu tax a jóg dégg nga réew mee ñu tax a jóg dégg kenn taxuma jóg man réew mee ma tax a jóg kenn amul kenn ku ma tax a jóg lu dul réew mi waaw li ma bëgg incha allah bu ñu ko yàlla defalee waa ji njuru na sàcc bi duggoon sama oto ba kanam gii kii ndax am na sama oto bi dama ci def caméra quoi mais am na temps yële ci ginnaaw boobu nag waxuma ko kenn da am ku tëj verre bi am na raay band yu ma bàyyi woon ci oto bi sax da koo sàcc mais mu gis caméra bi rek teggi ko mais kanam gi gis nii njuru na ko de mais boobu dafa soloon xool yi ma ñëw dindi piis bi gis sàcc bi yóbbu tàyyi naa ko sax dem yóbbu police pour ñu koy kii quoi awma ma sax jot ko dama maa ngi naan tey suba ngoon tey suba tey suba tey suba pour ñoom ñoom boo ko yóbboo danañu gën a segg kii bi caméra bi danañu xam ku mu doon préparer ko pour ëllëg benn verre bi la toj waaw sàcc na fi ay ay affaires yu ma yoroon fii sama oto bi ak benn paaka bu ma doon yor fii nii yooyu yëpp la yóbbu bàyyiwu fi dara kurus yi daal la fi bàyyi kurus xam naa ne amalu ko intérêt kurus yi ma bàyyi woon fii cooto bi joxe sa këyit yi mais caméra bi jàpp na ko sax quoi nga gis waa ji nii kanam ngi njuru ko lool mais nag mën na koo bañ a nekk ñu ngi góorgóorlu moom day for ay biteel nii mu njaxlafee nii mën na am tamit du sàcc ay biteel lay for gisoo ñii di for biteel yi dañuy am cent nangam dollar ci journée bi loolu rek xaalis la waa jooju nga gis muy dem di affaire bi na la di dem ay biteel moom lay fo non xam nga rek soonaay sa nga ni lu xew non dara xewut li xew kay mooy ñun rek suñuy jukko rek après le combat continue incha allah man xam nga mooy ca la ma newoon rek ca laa ne incha allah ca la ma newoon rek dara xewul li ma fi wax nii doo nga xew waaw réew maa ngi noonu fii la réew mi toll ak traître yi nga xamante ni ñoo waroon Sonko yàlla di leeral mhm. kenn bu ko bu fa bu ko defee nag buñ fi jógee kenn ku ci nekk xam nga xam nga kenn ku ci nekk xam nga sa taxawaay daal buñ ci jógee ku ci nekk rek xam nga sa taxawaay quoi à part loolu doo nga laa la mën a wax mais ñu ngi leen ñu ziar yéen ñëpp waaw yeah. ma kum, comme uh, yeah di man di man mini grand you you sleepy no man I've been sleepy man I just I wake up like long time gis nga bima ma commencé dafa dafa dafa dafa dafa dorkoon dafa bi may commencé gisoo dafa lëndëmoon mais mi ngi naaj bi mu ngi bëgg génn quoi yow damay dem liggéeyi nii damay nii gis nga nii toog naa sax su ma kiiwee nii rek damay coq dem damay commencé liggéeyi nii yaakaar naa ma xool am naa essence am naa essence dafa jaar ci kii damay continuer liggéey loolu du lay def nii mooy li ma leen doon woo noonu rek ci loolu laay woo Sénégalais yi dégg nga liggéey moo am bitim réew ñaq ñaq jariñu moo am fii bitim réew mais comme ni leen ko gars yi di présenter dégg nga affaire yi ñëwul foo dem lii doo du foo dem lekk de waaw boo demul ci mbalit yi fii for ci lekk lekk loolu la quoi benn instant sama gaay maa ngi lay ñu bàyyi yaa ngeen jëf ñu yendu jàmm alhamdulilah